du ma ci créer kenn lépp lu ma leen wax dëgg la Ousmane Tounkara sàcc la. ah bul wax loolu sama xarit bi nag. sàcc la. wax loolu sama mbokk bi de. Assane Diouf sàcc la. ndax lan. luñ def Amérique lu ñu doon liggéey. waaye boo leen xasee sàcc ñoom ñu xas la leen. benn loolu lañ ma xas xam nga lu ma may xas. Hmm. caga nga saa su nga wax leen sàcc ñu wax la caga loolu est-ce que tamit jëm na kat. ñoom ñoo ko commencé nee naa la lu day ni. ku saaga président république di ma bàyyi man Tunkara da dan wax naan xoolal caga ba Las Vegas di défendre Macky Sall manan naan mm, bu coupé woo ma xool ndax seetaan naa laay fam ah bon barki tuko. Tamaide gitu Usman may dégg kon def ba tontu ko damay Ousmane Tunkara di di try di xool ndax man dégg naa man nit ñee may di ma wax deng dégg li la bisu du ma leen seetaan ñoom nit ñee may woo ni ma li Ousmane Tunkara ma ne ko Ousmane Tounkara ma woo léegi ñuy waxtaan. lam la yàq ah yàq la dara woo na ngeen ah waxtaan yéen. lii la may def ñu ne ma li ngay wax kura du dëgg Ousmane Tounkara du la woo ma ne leen la ma Ousmane di nettali man su ma ko waxee àddina duñ ko gëm ñu ne ma enregistré ko ñu dégg Xaadim Gueye bu Italie ni ma munuma la gëm yow Tounkara yow mu lay wax yow lu ñaaw li la Tounkara di wax da lay woo. billahi wallahi taalahi ci laa woote di laajte nan la ñuy enregistré dama ko bloquoon ñu ne ma débloqué ko dama ko débloqué man lay wër Ousmane Tunkara man rek la bëgg rek mu ma kuréel Macky ko Ousmane rek di ko enregistré waxoon la fi ba nga ne Macky Sall Sidi Lamine dama la ni la lu ñaaw kenn wax. Mm-hmm am na yooyu wax Ousmane arrêté ko nit nu muy nit Macky Sall nan la mën a rey Sidi Lamine Niass mu ma dina génnaat barki salaatul faatee mi ngi may dégg dinaa génnaat defaraat wax ji Ousmane génn saaga ma ñu woo ma wax ma ko ma bloqué ko ñu ne ma débloqué ko ma débloqué ko enregistré ko muy wax lu ne gëmuma Ousmane Sonko la ma wax est-ce que dama koy votel est-ce que duma votel Macky sàll barki salaatul faatiha laa lay wax nii salaatul faatiha laa waat. lii ngeen defandi. baa mu yëgale nit dina leen wóor baa mu mhm. askan wi dara. Mhm. joxe sa numéro ñu lay saaga dugal la bu xorom. nga ne dafa la euh, est-ce que dinaa voter. est-ce que votel Sonko ma ne ko yow Ousmane billahi wallahi ni laa doxee génnal ci man gaw ma la tey gaw ma la ëllëg mu ma xoolal mbañ gàcci ke man bu ma Macky Sall joxoon yow dama bëgg ñu liggéey na ma Macky Sall jox parking lag, may yóbbu ay auto, dina wàccee Sonko kura ba nga xam ni wàccee naa ko barke salaatul fatiha non Ousmane Sonko ma ko sama ni xaadim mu ne ma kuréel lii nga may wax gëwuma ko boo ko enregistré wul man duma la gëm Ousmane du wax li ma sama école doom la ma fekk ma toog 7 heures du matin la ma oo sima laa benn yoon rek laay tooy Macky rek laa gëm gëmuma ku ci langue politique bi su ne won bàyyi bàyyi tey barke arxuraan ma summi samay ndombo député dem ñibbi démissionné ñibbi su Macky bàyyi réew mi tey ma dindi mbubbu député bi ñibbi man. kon yow Macky nga toogal assemblée toogaloo askan wi. moom fa teg. mais askan wi moom fa teg loolu dinañ ci ñëw de. waaw loolu débat la continue. bàyyi fa teg. waaw waaw léegi moom bëgguma sax ñu dugg foofu noonu. parce que laal ci fi nga ma lay wax pour ma wax la dama ko gëm. Uh-huh. dara rëcc. dama gëm président Macky Sall faruma ak duma fansam dama ko sopp ndax li muy def réew mi dama yàgg bitim réew ci loxo tubaab yow dem fu ne di gis lu ne sama réew buy soppeeku ma di ko gis mais damay tiitaru ci tubaab yi ne naa la ba ma duggee ci terrain bi dañ ne ma welcome home. yaa Tunkara fan ngeen mujjee en fait ci ci ngeen doon enregistré ko. Mhm. muy wax lu ne. Mhm. muy wax lu ne. li Tunkara wax yëpp ci enregistrement boobu mënatuma ko sa mënatuma ko sa xalaat gëmul li muy xeex mhm. su ko président Macky Sall tey wutaloon parking boobu mu muy wax mais mhm. dafay mel nii la wax kàkkatar laa lay wax ni day changé di commencé mais yow activiste laa lay wax de day ah changé lii la ma doon laaj pour ma wax ko président la dal baara moo ko dal moom la njëkk a dal Ojo Pastef yi yëpp jéppi ko ba dañ ko jepi ba ojo audio boobu moo nekk seen bopp ñoom day toog di wax rek gëmuñu ko de Pastef gëmuñu ko xoolal lu rëy li def working permis mu jeex hmm. working permis bi daf ko amoon parce que dañ ko ko jox pour mu wàccee mais sàcc dóorkat yi Amérique pour mu ñibbisi 21 personnes ñëpp daw am na ñu nekk Amérique di ko nëbbatu parce que dalay wàcce wàcce bu demee nag mooy dalay boole dañ ko génnee pour mu boole. dañ ko génne fu mu duggoon. kaso kaso mu doon snitch moom la américain do snitch. Mhm. di ànd ak say morom. Mhm. di leen yoole. ok tax na nee naa la 21 sénégalais. yu ànd ak malien ñibbi si fi daw boo permis ba jeex mu xam ni gars yi dañ koy kepp yow indi ko Sénégal koy kepp yow <laughs> mais xoolal mu yuuxu FBI lu mu lay doyee ci sa ci sa ci sa normalement sa working permis buy jeex dañ lay wax 90 days nga koy ñëw renouve lu tax FBI woo ko lan mooy yoonu FBI ci kayitu ci sunu kayit yi ñun FBI ko woo da doon ñibbisi mu def dil bi yuuxu ne Macky Sall ak may andi Pastef naaw Pape Alé Coxolaan jóge fii dem ñu nekk ci erreur ci niir yi mu play leen game ne bu ñëwee Sénégal dañu koy rendi américains yi boo leen waxee loolu dañuy ak ak mbooloo déggoo bañ naan terroriste ku dégg angale di nga dégg avocat bi ne I don't see what you guys talking about li ngeen di wax affaire terroriste man gisuma ko mhm. du loolu ñu wékkati ko Macky Sall moo play boobu game ken laalu ko kenn tudd ko wax na fi day rey président yooyu yëpp ay dilam la woon pour ñoom ñu attaqué ko mu ne dañ koy rey ndax working permit da doon jeex te da doon génn Amérique dama lay wax ni dama ko xam de. ah man loolu moom wax dëgg yàlla confrontation moom Ousmane sax xanaa hmm. daanaka moo la fi jiitu. lii la def ñaari confrontation te xam naa ne dina ñett. Hmm. ndax dinaa ko seeti dinaa laa jàpp. barki yonent bi. damay laajte. wékku ko ci kaw Macky Sall. same am na droit réponse boobu Ousmane Tounkara. same thing Assane Diouf. Amérique booy am këyit danga koy nëbb ni dee. sénégalais bu la yëg këram lay toog boole immigration bu la xoolal du la xamal dara pour yàqal la rek looloo am Amérique dañuy boole wante Assane Diouf toog ak li mu saaga Macky Sall yëpp ay nitu Macky Sall Amérique di joy mu taxaw mu man sama këyitu mag fi bingo <laughs> bingo lañ ko bingo nii rek ngay def ay fëgg ko ba mu demee immigration loolu lañ ko laaj nee nga sa kayitu mag nga fi duggee mu ne waaw ñu ne ko you going home ñu ne Macky Sall moo indi Assane Diouf Macky Sall moo indi ah, xam naa ne Macky Sall sonn na Macky Sall sonn na naka ngay toogee lu day ni Amérique nga ni man booba rakkaaju na asaka wax ci dangay wax ba wax lu ëpp sama këyitu mag laa duggee jef jefke man kenn mëna ma dara négro nawee ah ah yaa ngi toog yu wees di wax waxi këyit mais